jumaa ji nag moom lu fa yow lu ci waay defee sa bopp la nun di amul amul ko ab yegg rek caabi ji nun daal caabi yi la ci caabi yi lay laaj lan lañ la ñuy laaj moom lay joxe eh, wax naa ko sëñ Baye Si Mansour keroog ba njëkkee toog ca kër Matar Cissé booba juróom-ñaari dund joxuma juróom benn man ko jumaa ji man at at naa ci sama kër سمعي كريمام ما جاي دفكو شي اللهم صل على سيدنا محمد بالفتح ما ولقى القتل ما سبق نزق يقين ab piste bu toll ci juróom benn kilomètre lëkkale ñoom rey ak dëkk bi di ngejj ki ko defar di El Hadji Dame Diop nekk opérateur économique nekk tamit doom ci dëkk bii di ngejj autorité locale yi ak askan bi nga xam ne ñoo dëkke ngejj di rafetlu doxalin bu nu mel jàpp ne yoon wi dina tax ba seen tund wi désenclavé wu waaye tamit bokk ci li nga xam ne dina ko suqali bu baax ku ne gis na transport bi ni mu jàppande ku ne gis na mbay mi fii lañ leen di fekk jënd gerte gi jënd ñebbe ji tey jii su nit feebaree maare day taali guddi génn dëkk bi dana ko yomb loolu nag su ko nit defee te def Mbadiar TV Mbadiar TV seet seen YouTube bi xew ci jamono bàyyi ko fi ci mbawoor yow mi am gàmm màggal wala siyaar nga bëgg àdduna bépp yëg ko seetaan la directement woote 76 751 daal ci kaw ca kanam abonné te bés cloche bi ngir mën a am bépp vidéo bu jàll ci Badiar TV 76 la 751 71 45 Badiar TV daal télévision Mbawor kaw ca kanam